problème mooy lan dañoo war a jox suñu subvention mais ba léegi parewuñ pour jox ñu suñu subvention te tegul fenn tegul fenn da ngay ñëw ñu lay ñu lay wax yoo xam tegul fenn naan la tey dugg na fii génn na fii euh, après après lañ ci waxaat mais loolu ba kañ te instant étudiants yi ñoo ngi souffrir étudiants yi ñoo ngi souffrir dañuy souffrir fi mu toll nii nag fi mu toll nii ñu loolu lay wax rek bañu si dara lépp lu mu laaj pour pour pour nga xamante ni moom lañ yelloo ak ñun dañu ko war a jox dinañ ko laaj te aussi bañu si dara. lu lépp lu nga xamanteni jar na pour ñu semer la bordel pour avoir ce qu'on veut on va le faire inshallah bo gisé tay gi li ñi def ni moy cri du cœur lañu def parce que amna lo xamanteni waru ñu wona ag fi neexul ba neexul mais ñun danoo pacifique cette jeunesse là dafa pacifique de trop loolu moo tax autorités yi di yek ci suñu kaw amna lo xamanteni xamante na ñak seeni dom nak i doom bu ñu jàppoon comme seeni dom je parle sumay wax nak duma fi nekk di dawal cadre geeg yoy suñu wax ñun bala ñu wax kenn ñi nga xamanteni population bi ñoo leen faloon muy Demba job si ak Seynabou Gaye Touré ñun ci ñooñu la wax balaa ñuy dikk ci yeneen bonne volonté yi am lu ñu dimbalee Demba Diop si mii dafa deful liggéeyam nan ko wax dee parce que tamit mënuñoo concevoir ay pire ay localités yoo xam te du man sax yu ndaw mais yoo xam te ci biir Tivaouane lan bokk di recevoir 4 millions ñun ñu dikk fii depuis lors te ñun njëkkee wuñ conférence de presse de communiqué leen njëkk a bind door leen ultimatum 7 mm-hmm. jours kenn réagirul ñàkk réaction moo tax ñu nekk fi def conférence de presse te conférence de presse bi bu fekkee kenn réagirul tamit leneen mën nañu cee fekk te rusu na ñu toog fi naan ay jeunes di toj fii wala di kii fii te buñ maytul foofu lañ jëm parce que gars yi xamuñu dul ku violent parce que il faut ñu violent pour ñu jox ñu lu ñu moom boo gisee autorités yi seen ñàkk considération mooy maanaam ñoom dañoo amul volonté ci suñu jeunesse bi ñoom dañoo gëmul ci suñu jeunesse bi que mën nañoo dem di lu ñu jooy balaa ñoo dem feneen ñi ñu la te nag may ma jën jàngal ma nu ñuy nappee moo ma ko gënal ñun bu ñu fee nekk di leen ñaan loo xamante ni subvention bi ñu votel joxagul ñu ko cinq millions yi joxagul ñu ko la preuve en est que fii lan yo bi ñëpp gis na ni mu mel kenn ku nekk di jël say jeunes say étudiants di leen jëlee n'importe où di tegale ay ay quinze di leen ko may ñun ñu ñoo may deux bus man may président bi kenn mayu ma bus Demba Diop si monsieur le maire dama ko woo ba sonn muy gis nii envoyé ko message faalewu ma ah. seen a bëgg ay tëré moom dem nañ fa fekk fa secrétaire général déposé fa su nee bay dem ci ay MDL ay ICS fépp fu nekk di jéem a ñaan motivation ay jàmbur du ñëw di ñu béy dërëm dugul depuis loo xamante ni janvier lañ ko voté ba tey dërëm mënuñu ko recevoir dërëm léegi da nga fi nek say rak ñofay nek ngay nek di dalal seen xel nan la li ak li te bu yagge yu jappé la fen kat te jité dafa metti te ñun mënuñu lu dul ñu aider ñu pour ñun ñu mëna a aider mënuñoo aider kenn parce que mënuñoo dimbali kenn mënuñoo wax dimbali suñu bop ultimatum bi lan la ultimatum bi moy dañoo ko lancer def point de presse ndek na leen def ultimatum parce que communiquer lañ leen jëk bind mais répondre wuñ te dañ doon xaar seen réponse waron nañu bañu ag fi parce que bu ñu jàppee woon kon seen dom parce que autorité yi fi nek muy Debo job ci muy seen bëgg ku ci amone dom bu nek ci 6 université yi di nga réagir vite fait